waaw jërë ngeen jëf euh, mbokk yi euh, adduna bi ñu ngi leen di ziar baax di nuyu ñëpp waa diaspora bi ak waa Sénégal di ñaan ci réew mi yàlla def ci jàmm tey nag ñu ñëw ci grand prix El Hadj Mor Gueye sopp na bi ànd kook euh, dooleel daara tey ñu nekk ak imam Idrissa Gueye yaakaar naa ni kenn du ko présenté Sénégal muy kilifa diine di kilifa koo xamante ni Sénégal gépp bàyyi nañ ko xel tey nag ñu fekk fi nga xamante ni mooy waajtaayu. journée grand prix El Hadj Mor sopp na bi imam Idrissa Gueye di président ànd doole ak daara ñu àndandoo ko ñoom ñaar taxawal journée concours alquran waaw imaam ñoo ngi lay nuyu bu baax a baax a baax a baax di la jox sa wàccuwaay. Ah, asalaamaaleykum wa rahmatullah Mor Gueye maa ngi lay delloo nuyoo di la ziar di nuyu waa Alxaaji Malick eh, TV defe na ñi nga xam ni ñu ngi ci ay gox yu fasantikoo di topp site bi nga xam ni. bokk na ci sites yi nga xam ni jar nañoo bàyyi xel parce que lu rafet la ñuy wër di ko siiwal te loolu la lislaam digli nu ko waxee rek nag ñu ngi nii ci tànt bi di waajal grand prix régional concours alquran bu alxaaji Mor Gueye soppale bi nga xam ni daaw première édition bi dix millions la joxe woon ren deuxième bi mu def ci quinze millions pour dooleel daara bu ñu ne alaaji Mor sopp na bi nag ku sopp yonent bi nattukaay bi mooy alquran inna alqurana huwa almizaanu taarifu minhu maa xawayta min al ashwaati wa sadami cofeelam ci yonent bi moo waral lii def waaye ci social ku xam na ni ci lay dox Mor Gueye fii di wax ak yow ci diiru mën naa la wax ñaari weer diggante février ak mars ci lu jëm ci social lu mat cinquante millions jaar na ci sama loxo jóge ci alaaj Mor gi wallahu shahidun ala ma naqul ci màkk yi ci fees ci daara yi te yooyu muy def du luñ koy digal ay yëg-yëg lay am def ko te yàlla tax su keneen yëgee kii ñu ko defaloon mbaa ki mu jaaroon moo ko wax waaye moom bu mu ko defee la ci pare kon ndaw yu mel noonu ci dëkk jar nañoo ñaanal weer wi la alquran wàcc weer wi weeru koor ci wàcc shahru ramadan alladi unzila fihi alquran weer wi alquran wàcc nag bu ci defee bés bu toll nii di teral daara vraiment ñu ngi koy ñaanal yàlla di woo ñëpp nag di wax ni suba ku fi dix heures fekkul boo ñëw doo toog incha allah jënga tànt bi nu mu toll yi dana mu mel ni imam première édition bi ku ñëwoon Thiès da ngay jaaxle ndax bis bi réussir kon tey ji deuxième édition bi yaakaar nañ imam ñoo ngi koy xoolee tamit ci feneen beneen facette mais nag ñu gis ni imam bis bi de am na empleur empleur boo xamante ni ñun fu nekk lañ ñuy woowee ci dëkk bi di ñu di ñu di ñu laaj bis bi kañ la ak ban heure lañ ñu mën a tàmbali ñu ko dafay mel ni ku yor du soo ñëwee doo am foo toog. gis nga xam nga suba daanu wàcce ay kaamil yu bëri pour ñaanal Sénégal ki nga xam ne moo def lii tey di El Hadj Mor Gueye Soxna diggante 9h ba 10h bu 10h passé nag nit ñu commencé installé wu ndax 11h00 minute cérémonie bi day door télé yi koy def direct yëpp commencé ay 2S yi nga xam ni ay Malikiye Asfiya yi Thiès TV fa tabarakallahu ak yeneen i télé régional ak yeneen télé yoo xam ni ñu ngi fi war koo def 11h daañu démarré. quinze heures zéro minute daal yëkkati jotaay bi kon li wér daal te wóor mooy yàlla may fekk ak tal ki ko def yéeneem moo sell moo tax mbir mu lépp a yokk xam nga ni lii ñu def ren wuute laa la ñu def daaw te la ñu tànt daaw rafet na de waaye li ñu tànt ren xam nga ni beneen affaire la. <laughs> waaw Imaam ñu laaj la tey bi nga ñëwee ba ci tànt bi ban yëg-yëg nga am ak sa diggante ak alxuraan yëg-yëg ma am mooy mbégte mu rëy ndax fii dañu koy tàntal tant yu mel nii di fi woote leneen lu dul alquran moo tax bi ma ko Alaaji Mor Gueye joxee ak mouvement ànd dooleel daara groupe Sopp Nabi li ma njëkk a xalaat mooy ñi fi tànt di fi woote lu dul alquran te alquran lu gën lépp kon dinaa tànt tànt bu nu mel ñu wooteel ko alquran maanaam man yëg-yëg googu rek laa ci am bëgguma woon benn tànt gën ko fee rafet gën ko fee taaru ci doomu adama moo tax ma defe ko nii yëg-yëg gi mbégte rek la di ñaanal daal ki nga xam ne moom la ko yàlla jagleel ba mu xalaat ko ba wax ma ko ba dénk ma ko ma koy coordonné di ko def incha allahu taala. ah mu mel ni yeneen ko déggandoo yéen waa Sénégal waa diaspora imam Idrissa Gueye nekk ci préparation grand prix El Hadj Mor Gueye sopp na bi ñu ànd kook moom dem ñëpp gisoon nañ première édition bi ni mu mel te deuxième édition bi tànt bu yanjeen nii ñu tàndal ko alquran moom it mi doomu daara. di ñooñu alxuraan yàlla dogal dañ nit la mu la la la la mën moom lañ koy defloo moom nag yàlla dogal ñëpp xamee ko ci imaam Idrissa Gueye mi nga xamante ni ku bëgg alxuraan la euh, di liggéeyal alxuraan di liggéeyal suñu borom def lu baax même imaam tey lan mooy sa sa moo bu mujj ci wàllu réew mi ak réew mi gis na situation yi ni mu demee ni jamono ji te nag ñëpp ne nañ ku bëgg solution réew da nga dem wax ak ñooñu alxuraan euh, sama ci wàllu réew mi situation bi di nga am rek ka war am lenn rek lay ñaan mooy élection yi na am lu leneen élection yi nañu ko def ki yàlla ne mooy falu falu qul illahumma malikal mulki tuutil mulka man tasha maanaam yàlla moo yore nguur maanaam yow am na koo bëgg am naa ko kii bëgg grand sëriñ am na ku mu bëgg Fall Damel am na ku mu bëgg ku ne da ngay bëgg waaye def élection yi ci yar ci dal ci tey ci xar kanam di ñu xamee Sénégal te mooy wax jàmm def jàmm la 24 ku ñu wóolu fal la nga doxal ki fi nekkoon moom pare na mission moom jeex na laajatul nañu organiser le 24 bu premier tour amee kii jël jël ko bu dee deuxième tour dafa am bu ñu ko defee le 31 ki koy jël jël ko la yàlla nam pare na ak rufi'atil aqlaam wa jaffati suhuf lenn rek lay dénkaane mooy lépp lu jëm ci violence nañ ko éviter cas yëpp nag. moo tax ñi nga xam ne ñooy candidats yi di dix neuf candidats yi maa ngi leen di dénk la ñu wax ak militants yi yëpp ñu moytu violence woote ji dellu seen kër xaar résultat yi ku ko yàlla jox mu jël ko incha allah. waaw mel ni lu am solo la Imaam Idrissa Gueye wax ci réew mi kon nañ ànd ak dal xam ni ki yàlla fal fal nañ ko bu yàgg kon nag. tey ñoo leen indi leen fi nga xamante ni moom mooy grand prix El Hadj Mor Gueye sopp na bi ànd koog imam Idrissa Gueye ñu leen di wax euh, rendez-vous suba incha allahu rabbi à dix heures nañ ñëpp ñëw euh, ñu jàng alquran euh, ñaan réew mi jàmm dal ci. waaw waaw ci rajo yonent bi sallallahu alayhi wa sallam. mu am solo mu nekkoon alaaji Idrissa Gaye nga xam ne nekk na koo xam ne ku am solo la ci wàllu li la di tarixa ci wàllu li la di diine islam mu nekk programme boo xam ne bu amas am solo la suba jàmm la incha allah na ko ñëpp bàyyi ci promenade bu Thiès waa loolu tamit di ngeen ko mën a dund en exclusivité ci Aladji Malick TV ci information yu wér te wóor yi nga xam ne eh, yéen a koy bàyyi xel ci moom kon loolee daanaka alaaji morgue sopp na bi nag ko jara la ndax daanaka loolee la collaboration ak kii nga xam ne daanaka mooy alaaji Idrissa Gaye lépp nag doon sot def si lépp doon tawféex lépp nag doon loo xam ni ñoom ñaar ñi ko séq ndax diine islam moo am ndam ci ànd boobee nga xam ne ñoom ñaar ànd nañ ko ànd boobee yàlla yàlla suturaal leen si defal leen si jàmm ak salaam yeneen information yoo xam ne dana soxal loole danañ ci dikk ndax loolu fi mu toll nii daanaka di programme ta alxuraan bi nar a am suba mooy sunu yitte ci jamono ji nga xam ni moom lanu to moom lanu toll wéy leen dina topp